Cheikh Tidiane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. alors ngay secrétaire général euh, béykat yi nga xamante ne ñoo nekk ci bassin arachidier bi ñu gis ne euh, jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum agriculture euh, souveraineté alimentaire ak élevage muy Mabouba Diagne moom daal nee na mën nañoo xaar ay production record jëm ci wàllum gerte gi ci at gile ana nan nga ko jàngatee. waaw ni ma ko jàngatee man je pense que ne ministre bi dafa am problème dafa am problème dans la mesure où bon loolu koy wax sax moom pense que ne euh, waroon naay xoolaat boppam parce que coow li nga xam ne mu ngi ci gannaaw fan yi yëpp nga xam ne gerte gi la ñuy wax bët bu set rajo yaa ngi koy wax euh, représentant yaa ngi koy wax dégg nga maam mu nekk di wax lu nga xam ne moom loolu mënul nekk je pense que ne loolu vraiment man daf may jaaxal parce que ministre bi loolu nag lu ko indil mooy ne il est mal entouré aussi programme yi fi tegoon nga xam ne dañ dañ daan def euh, di wër àll bi pour xam culture yi nan la toll yooyu yëpp dafa ko erreur yooyu nag moo ko indi loolu parce que bu ñëwoon ci àll ba gis nit ñi wan ko de ko gerte gi nii la mel yaakaar naa ne wax waxee tam du demee nii mais finalement dañuy toog rek di recevoir ay quelques nit ñu nga xam ne duñ leen wax lu xew bu boobaa aussi je pense que ne lii mooy indi rek loolo tax vraiment fi mu nekk nii coow li bëri na trop mais moom ci boppam sax xam na ne loolu mënut a nekk. nee na nag euh, dina génne ab benn arrêté goo xam te ne dina jëm rek ci dàkkal fi lépp li nga xamante ne mooy wàllum exportation ak gerte gi euh, ana nan nga ko euh, gisee. waaw loolu moom wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ak li ñu espérer nii. nga xam ne vraiment quantité yi du toll noonu yaakaar naa ne euh, mun na nekk mais mun na nekk naa la mesure euh, parce que ñun concurrence bi euh, li taxoon exporta exportateur yi ñëwoon mooy àll bi dafa ndóoloon parce que ñi fi nekkoon duñ doon jënd gerte gi mënuñoon am pouvoir d'achat bu ko doon jënd mais ni ñu ko doon jëndee dafa faible ba nga xam ne àll bi boo fa demaan presque ay sàkket ay néegi ñax nga fi doon fekk mais ñoom bi ñu ñëwee vraiment dañ yëkkati pri bi ba fi mu nekk nii àll bi di ci gis seen bopp léegi nag le problème qui se pose arrêté pour arrêté ba nga xam ne paysans yi ñooy dee loolu moom ñun organisation yi duñ ko nangu parce que lu tax duñ ko nangu mooy euh, euh, les industriels qui sont là duñ jënd prix bu baax léegi nag li mën a nekk mooy loolu lu ñuy toog waxtaanee la ñu xam prix bi au fait nan lay toll bu boobaa bu prix bi euh, acceptable lu nga xam ne nit ñi mun nañ xam ne lii nekk na kenn gënuñuy bugg réew mi. bu boobaa ñu jéem a seet yan voile ak yan doxalin lañ koy dox parce que ñoom dañ ne souveraineté alimentaire te souveraineté alimentaire mooy li nga xam ne moom nga yor nga defaree ko ci réew mi pour nit ñi mën koy jëriñoo. bu boobaa loolu mun na nekk mais su loolu amul vraiment dafay nekk complication. alors Sénégal nag mu ngi dépensé euh, lu toll ak mille cent dix milliards euh, ci koppar jëm rek ci importation euh, produits alimentaires yi. waaw loolu mooy problème bi parce que boo gisee ñu wax souveraineté alimentaire li ciy ko fii ci xaalis réew mi di dem fële bitim réew. nga xam ne tey jii mënoon na des ci économie bi dégg maam ñu koy jëlee ay produits di ko indi fii je pense que ne loolu dafa war a mënoon a arrêté ñu def une bon politique agricole bu nga xam ne vraiment lépp luñ doon jënd bitim réew mu nekk fii nga xam ne duñ ko jéggaani duñ ko kii xaaj boobu des fi bu booba nit ñi danañ si mën a jot réew mi dana mën a dund économie mën a dund bu booba aussi je pense que ne bénéfique la ci da nga maam euh, xaalis boobu di dem mais su loolu amul je pense que ne économie bi day gën a nërmelu mais nit ñi aussi dañuy gën a sonn parce que lii jokkoo ci bitim réew di ñëw doo maîtriser prix yi lii jokkoo ci bitim réew di ñëw des fois nga dem uti ji ko doo ko am yooyu yëpp dafay nekk ay complications yoo xam ne. donc ñu def de sorte que agriculture bi baax bu boobaa ñu régler problème yi wax naa moo gën. donc mën nañu wax ne quand même euh, koppar googu la euh, mën na bokk ci li euh, sukkali produits alimentaires yooyu la. waaw je pense que ne loolu ak kii bi dafa wutee parce que lii dañ ne xaalis la bu nga xam ne dañ ko doon dem rek di ko jënd ji man suma xaalis a ngi ci keneen xaalis a keneen a ngi ci mais lii problème bi nag mooy. lii état di dégager pour mu dugg ci agriculture bi loolu moom waxaguñu ko xamaguñ ñaata la donc mais ñoom seen priorité agriculture bokk na ci parce que xam nañ ne mooy pilier maanaam mooy yenukaay bi nga xam ne tey jii moo mën a doxal réew mi loolu nag waxaguñ ko mais xaalis bi nga xam ne moom moo fi jéego di dem ci bitim réew sa xaalis daf ci nekk suma xaalis nekk xaalis keneen nekk ci. loolu moom nekkagul xaalis bu nga xam ne mooy yemb pour nekk bi mhm. léegi nag politique agricole bi la war a mais politique agricole boo ko bëgg a aussi foog nga defar lu ñuy wax structuration de l' agriculture parce que agriculture bi dafa mel ni dégg nga maam làmb ju tas dara dara dara dara dara kilewu te li nga xam ne mooy bu ñu ko defaroon lépp lu nga xam ne dégg nga maam dafay nekk luy jëriñ baykat bi ci dem ci commencement bi ba ci fin bi dafay mm-hmm. delluwaat ci baykat bi mm-hmm. muy semence bi muy engrais bi muy leneen lu nga xam ne dégg nga maam dafay ñëw dafay nekk ci baykat bi boobaa aussi baykat bi man ciy mm-hmm. gis boppam bu ñu sukkandikoo kon ci euh, jëwriñ gi mën nañu wax ne mbébét gi daal bokk na rek ci taxawal fii ab coopérative agricole euh, jëm ci cent 557 commune yi nga xam te ne ñoo nekk ci dëkk bi waaw loolu moom ñu ñu njàkk ñu yàgg wax la parce que ñu bokk nañ ci ñu ko njëkk a que ñun lu ñu wax mooy que ne coopérative yi biñ nekk uti ji ma ne leen loolu mënul nekk li mën nekk mooy il faut ñu am coopérative bu nga xam ne commune bu ci nekk ñu jël paysans yëpp ku ci bëgg dugg dugg ci ku ci bëgg dugg nag yow nga defal sa affaire bopp mais ku ciy dugg moom mooy interlocuteur état bi. Hmm. léegi nag liy problème bi mooy commune bu nekk dafa am spécificité am na ñu nga xam ne euh, gerte la ñuy bay am na ñu nga xam ne ceeb la ñuy bay am na ñu nga xam ne soble la ñuy bay hmm. ku ci nekk daf sa coopérative bu nga xam ne ci commune boobu loolu moom ngay représenté hmm. bu ñu demee nag ñu organiser ko euh, commune département région. ba am national national boobu nag mun na nekk versant bu nga xam ne euh, chambre agriculture lay doon ou bien CENIA bu nga xam ne dañ koy renforcer bu boobaa béykat bi dana am représentativité bu nga xam ne dana am doole pour mën a waxtaan ak da nga maam nguur gi nguur gi dafa dugal alal ju nga xam ne foofu lay jaar béykat bi nekk au début à la fin de lépp luy jëriñ bay luy jëriñ ne da nga maam agriculture bu boobaa dana nekk retombée yu baax mais liñ gis mooy ay opérateurs yu nga xam ne ñoom ñoom ñëpp ay milliardaires lañ te xaalis boobu waroon na dem ci baykat yi te ñoom ni ñu nekkee milliardaire dafa mel ni lu fictif jëlal ma engrais yóbbul ma place sàngam jëlal ma jiw yóbbul ma place sàngam te den du ci nekk qualité ñuy am ay milliards je pense que ne loolu jaaduwul léegi nag bu ko baykat bi amee vraiment muy nekk ay retombées bu boobaa sax dinañ dem ba paysan yi bu ñu amee doole dana dem ba nga xam ne pays euh, état dootu ci dugal boppam mu nekk ci yeneen programme yoo xam ne mooy gën a euh, am importance bu boobaa yaakaar naa ne njëriñ lay doon pour tout le monde. ana nan ngay évaluer tey euh, campagne agricole bi. campagne bi daal fi nekk nii boo koy xool lépp lu nga xam ne culture vivrière la wax dëgg yàlla loolu moom. am nañ ci résultat muy dugub jeeg mboq meeg yooyu hmm. mais lii bi daal mooy gerte gi loolu nag li ko indi mooy changement climatique yi changement climatique bi dafa indi problème bi mag gis nga ko fi mu nekk nii ak problème bi nekk ci vallée bi hmm. vraiment de Kédougou a maatam de maatam à Bakel yooyu yëpp nekk nañ ay programme ay problèmes yu nga xam ne yi yàq nañ tool yi yi yàq nañ euh, euh, kër yi donc mu nekk ay problème je pense que ne yooyu war nañ ko def ba sorte ga danga nga maam ñu mën a xam euh, alerte yi nga xam ne da nga maam mooy ñëw ba lëgëg si biir luñ ciy prévoir ñu mën ko ci prévoir hmm. donc agriculture bi dafa bëri lu nga xam ne dañ ko war a defaraat loolu laa la wax ne foog ñu structurer ko ma nga xam ne lépp lépp dafay jaar sur des roulettes dégg nga pour mu mën a dox dégg nga maam dox yi bu nga baax bu nga xam ne bu boobaa euh, on a moins de contraintes te bu boobaa on a beaucoup plus de résultats mais su loolu amul je pense que ne dafay nekk jafe-jafe nga xam ne bët bu set parce que xoolal ren lu yàqu rek ci vale bi bokkut ak gerte gi ñuy wax ni te loolu waroon na dugg ci koom-koom bi je pense que ne dafay nekk problème mhm. te war nañ mën a am matuwaay yu ko mën a euh, wax parce que tey jii ñu ngi wax ne loolu arrêté woon nañ ko bu yàgg mais état jëlul ci yoon plan matuwaayam je pense que ne loolu euh, dafay nekk ay problème yoo xam ne war nañ ko gën a defaraat ba pare euh, jiwu yi ñu ciy war a am yi nga xam ne dafa ànd ak changement climatique yi yooyu aussi dañ ko war a mën a defar donc dafa laaj lu bare bare bari ISRA DPV ñëpp structuration yooyu yëpp dañ leen war a defar xam nga météo et tout mais su yooyu amul da nga maam ku nekk day demee sa wàllu bopp rek ñii duñ dégg ñii ñee duñ dégg le après bonjour les problèmes. alors est-ce que waruñoo gën a mën a moderniser nag secteur agricole bi. moom mooy yor parce que structuration bi mooy modernisation bi parce que foog nga dafay institution de recherche bi doo ko ñëw néewal doole ISRA demoon na ba à un certain moment nit ñi dañ doon daw sax di fa génn nga dem DPV duñ daan am oto yu ko mën a regle nga dem jéegam am ci euh, semence bi nga jox ko ay yu nga xam ne seen yoon nekku ci dégg nga baykat yi waroon ko mën a yoreel seen bopp dégg nga nga dem ci fertilisation des sols. mu am dégg nga maam direction bu nga xam ne mos indi dara ci nga maam ci àll bi pour ñu ñongal suuf si donc taw bi aussi météo li muy wax ak liiga yi di gis ci terrain bi du nekk benn yooy yëpp dégg nga maam dafa laaj dégg nga maam dafa defaroon ko defar bu nga xam ne lép dana mën a ànd comme ni benn genre bu nga xam ne dafay nekk benn circuit fermé lépp dégg nga maam mën a déggante bu boobaa lu bëri dana mën a am njëriñ pour tout le monde pour l'économie pour monde rural bi pour dégg nga maam le développement du pays. Cheikh Tidiane Cissé jërëjëf may fàttali rek ne euh, yaay secrétaire généralu euh, béykat yi fii ci bassin arachidier bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. baax a baax.